بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أسماء الله Allahu ba saburu deug la dinañuy wax ni sax ku mokal juroom ñen fukki tur yalla yi ak juroom mokal am kër ajana. aljana wah. lañuy wax waaye man jàpp naa ni ben tur yàlla bu ci aw yoon la ma هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور ba ca sabur ba mu jeex waaye bu ñu gisee ku tedd ki itam maanaam di ci def ay xasaay daf koy ràbb di ko wëlbati am na ci bopp daf naan allahu rahmanu salaamu muuminu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay xasaay yu bokkul la ci def yoo xam ne chronogramme bi ni mu demee nii naturellement ci ni ñu ko xamee nga xam ne dinañ huwa llahu lazi laa ilaha illa huwa rahmaanu rahim al malikul qudus assalaamu muminul muaminul azizul jabbar al mutakabirul xaalul baarul musawwirul xafaarul xaar moom mu itam daf koy jël di ko ràbbee neneen di ko salfaañe mel ni ku koy salfaañe daal nga xam ne ni mu tëddee fii du ko tërale noonu ndax daf koy def ay ay kii daf koy def ay daf koy def ay woy وتمنى الله رحمن السلام ممن عزيز قدوس ولي مهيمن ملك مالك صبر منتقم عدل المقدم ومأقر هكم حفظ مبدئ رقيب النور برعف مجد مقتدر رحم باسط رؤوف الظاهر باطن قوي بمجيخ waaw dem na ba def ci xasida boo xamante ne bii almu'ti bi nga xamante ne bii dafa nëbbu daf ko caa def muy centième bi muy centième noo bi ndax boo demee ci bi tàmbalee هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس بو فا ديمي با جوروم نين فوك جوروم نين تاغا تي فيك دو تي فيك الموتي واي امنا خسيد بو مو ديف بو خامني الموتي شانتيم بي داكو تيا ديف كون لول ييب داف ني واني ريك لمن ينخاد لي فتح الغيوب من عليم تعليمه لي خاد افضل علوم داف ني واني ريك كون ليغي موم موم واو ليب موم لاكو يالا جوخ علمنا علمتني الغيب حتى صرت منتبها loolu daf ñuy gën a wan ni rek maanaam li nëbbu lépp moom moo ko xam waaye ñetti turi yàlla yi nga xamante ni bii ci biir turi yàlla yi lu mel ni al al muhayminu ak lu mel ni al mutakabiru wala al muqtadiru ñetti yooyu bu ñu doon ay jëmm day mel ni ndey ak baay ak doom al di doom al mutakabir di yaay al muqtadiru di baay bu ñu doon ay jëmm dëgg la suñu borom turam wu nekk ak secret yi mu koy saytuloo ak secret ya mu lambo waaye buñu xolé ñetti tur yoyu ñetti tur yoyu hikmatan manam juroom ñaari asman yi ak juroom ñaari suuf yi ak juroom ñaari bisi manam seeni sirru manam seeni leer ñoy saytu juroom ñaari asman yi ak juroom ñaari suuf yi ak juroom ñaari bisi lolu motax ñetti tur yoyu bu allahu jàllee asamadu jall ñaar yoyu bu jalle jàllee ñetti tur yooyu ñi ëpp doole ci turi yalla muy almuqtadiru ak almutakabiru ak almuhayminu loolu moo taxoon nag almuqtadiru bi bu ñu seetloo ca fan yële ca gannaaw rek war na toll ci ay bis mbaa mbaa ñaari ay bis ay bis waa mbaa fukki fan ak ñaar daal war na cee toll lim ba ma ci doon deflu bi ma ne leen nañu ko mën nañ koo yemale foofu bañu ko seete fekkoon ñu jot cee def trent trois millions de fois ci almuqtadiru lolou bu nangoo xajul ci dara motax nak euh, tuya ba je ñu yene ko yamal wuñ ko rek senegal ak ci julli bi rek wuñ ko rek ci khalifa bi ak njiitu rew mi rek dedet dañu xamni ben turu yalla ben bu ci nek rek man na lu ne ben ben yon kep boo ko waxee benn yoon képp te mu sel man na lu ne asimaag nak nombre bu toll ba tax na li yëpp li tax ñu wax rek moy surtout ndaw ñi gën leena xirtal rek ci turu yalla waxuñu leen de ñuy toog fi barab bi ko wérd dégg nga ndax gone du wérd waaw gone moom wax dëgg yàlla bu laa ilaha illallah jàlle salaatu ala nabi jàlle jërëjëfe Sëriñ Tuubaa doy na ci làmmiñam gone moom tur yàlla yii may wax nii wax dëgg yàlla waaw gone waru koy saytu te mag ñi koy saytu sax mag mooy mag ñi dëddu mag ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna xam ne jàmm yàlla rek ay seen métier ak turu yàlla te da yowmal jumaati moo tax ñu leen doon baaxee loolu wane ni rek euh, benn tur yàlla bu nekk rek jàpp nañ ne aw yoon la wala mën a wala mën a yóbbu àjjana waaye ñett yii nag moom dafay yëkkee maa ne moom hmm. rawante nag al muqtadiru damay bañ gone gu ko dégg nag defe ne danga koy war di werd te du yëfi gone asalaamu minallaahi aleykum wa rahmatuhu